ay ci nañ ban refus de paternité dafa bari ci réew mi. Ah, loolu ngeen doon waxtaanee démb ba xale bu jigéen ba la ko daloon noonu. waaw waaw ba mu kii ba xale yi mu daal dañoo bari. kii ah. ki ki ko daan jàngal karaté. Mhm. xam nga rek su la nit dee jàngal karaté wala mu lay jàngal sax da koy miin. kookul moo ko jéem a sàkku ba am moom doom maanaam la koy dund. ana jigéen ak jàngi karaté. ah jigéen nag day jàng lu mu koy jariñ. xam nga non taxam wax la réew mi ne ku wax lii wax la ca des. waaw ana jigéen ak jàngi karaate uh-huh. lu mu koy jariñ saa dire ban utilité la ko amal. Uh-huh. Ah. yow jàngi woo yor kër. waaw jàngi woo togg. waaw jàngi école. waaw jàngi woo liggéey. waaw jàngi woo euh, alxuraan. waaw ana jigéen ak jàngi karaté. mais dinañ jàng ndaxte góor ñi dañuy violé waatee. c'est li ci loolu. yaay ah, jigéen bu toog fa mu war a toog kenn du ko violé. am na yoo xamante ne jii ban. waaw su ma ci gisee jigéen. waaw na ma yàlla baal de. waaw mais du ma ci ànd. mooy lan. comme li nga wax ni jigéen ak jàng karaté. Ndiaye ah, jigéen dafa war jàng karaté ban utilité la ko amal. non amal na ko ay utilité de. jigéen yenn saa yi nga dem ñu bëgg la agresse agresseur yaa ngi ni c'est que su la agresseur carré fekk nga jàng karaté doo ci génne sa bopp. xam nga lu garaaw foofu. Hmm. du ñu xàmmee bu ngeen nekkee ca néeg ba ak ca dozo ba. ndax sukk jéeri ak màkkaani jéeri bu ñu la ciy jox rek nga war ko def dafay ànd ak ay huya huya dégg huya yi mën nañu yaakaar nañ yaa ngi ca doso ba nañ dem xool lii oh, dañëwaat ñu déglu ko waaw <laughs> man ma ko def sama maître la woon moo ma yore woon daan ma jàngal affaire dama jàngal affaire karateeg yooyu noonu waa ji ndekete nekkeewu fi lu dul di yàq xale yu jigéen yi bi ma defee loolu woolu ma ci mu ma ñëw bi ma ñëwee bi ma ñëwee mu daal di may jox ndox ma naan bi ma naan ndox bi nag doo ma conscient nekk xam te ne dama inconscient mais dama conscient mais sa ay cër moo mel ne loo xamante ne du nangu ma toog looy ma toog di ko déglu bëgg àgg sama kaw àgg boobu ma bëggoon àgg sama kaw nag moo mujjee bañ di forcer maag moom maag moom lu mujjee bañ bu mujj gi nag mooy sama kaw ma dem toog ba quelque temps gisatuma sama ay règle ma ne ah ma jaaxle ma dem si sama benn xarit woo ko wax ak moom mu yóbbu ma ci benn médecin médecin bu xool defal ni test bi mu ne c'est positif loolu bi mu amee maag sama xarit dem nañ ba ci moom wax ka ka ba mu ne waaw moom la moo ko def maag loolu mëkk ma yëg loolu parce que bu ñu xoolee suñu société fii nii dafa am loo xamante ne dañ ka nangu am loo xamante ne nanguwuñ ko te boo amee benn réputation yi nit ñi dañ lay dëkkal foo dëkkul alors que tel n'est pas sama yaay da ba remarqué affaire boobu wax ma laaj ma ma explique no affaire bi demee sama sama yaay dem fa wax ak moom mu accepté les faits daal di ko waaw bu ko waxee kon am na maa ko def léegi nag daal di accepté ni que lépp loo xamante ne daf ci war daf ko def toog rek après ñu ñëw toog di ko déglu deful benn effort deful benn effort ba sama wajur bu ji sama sama mag bu góor dem fa moom tamit wax ak moom tamit mu accepté les faits mais aussi loolu tamit deful benn effort daal dafa ma daan menacé nag yéen di ma wax yéen mbir di ma menacé di yàq sama di di di di di def yenn yoo xamante ni maanaam pour moo mën a déstabiliser wu parce que dafa buggoon toujours ma nekk di ñëw ci moom heure bu nekk te moom day bëgg bu defee yenn ba pare bëgg ñëw yow nga mel na ku nekk jabaram maanaam mu bëgg la jabaroo di la def loo yenn yi mu nekk loo xamante ne du lu normal moom jurul xale bi nañ dem seeti ji suñu bàyyi doom naa dem seeti ji man sama bàyyi doom bañati ko reconnaître te au début reconnaître na ko ba mu nekk xamee après nangootu ko reconnaître di ko parce que dafa am ndaw soo xamante ni la même chose boobu la ko def ñu daan ñëw këram dégg naa moo leen di toroxal di leen dàq affaire yooyu noonu mu bëggoon la même chose te man du ma genre boobu noonu du ma genre nit yoo xamante ni damay def lu bon wala damay wax lu bon wala damay jëf lu bon parce que kenn xamee ma ko waxuma ko dara dematuma woowatuma ko jëflantewu ma moom lenn nangu lu defal sama këyit doom man nag demal naa sama bopp defaral sama doom këyit jël sama sant man jox ko ko te dañu war a comprendre ni que ni jigéen deru jigéen mu yàqu moo gën a gaaw deru góor yàqu te fii la ñuy gis ni bu jigéen tey ëmbee jaarul yoon bu jëlee doom ja rey def infanticide wala mu def leneen lu dul naka sulu noonu ñu tëj ko alors que loolu warul mën a nekk góor dafiy def lu ñuy weng def loo xamante ne waru ko def jël xale di leen abandonné bu ñu màggee du ñu xam kan mooy seen papa du ñu xam kan mooy seen ay famille ba pare bëgg leen a yàqal yàq ñoom seen wayjur seen ay seen seen seen seen seen seen réputation yàq suñu société ni ñun ñoo bon alors que affaire bi du loolu amul benn loo xamante ne responsabilité boo xamante ne jël na ko sama bourse moom laa yoree sama doom loolu dafa nekk loo xamante ne dañ ci war a wax parce que góor ñi mënuñu jël jigéen ñi di leen yàq ba pare wëlbatiku ñoom di daw wala di daw seen ay responsabilité duñ ci jël seen ay responsabilité di leen def yenn yoo xamante ne te waa ji dafa nekk koo xamante ni il est trop maanaam dafa affaire maraboutage la lay def pour di am xale jigéen yi parce que je ne suis pas la seule fille à qui pas la seule y a yoo xamante ne dafa def na leen la même chose te duñuy wax parce que am na si koo si xamante ni du benn yoon la ko def def nag ka benn yoon mu wëlbatikuwaat ñëwaat ci moom di ko laaj ay këyitu doomam ji nga xam te ne mu reprendre defaat la même chose du jigéen ñi ñoo bon xëy li muy utiliser bay am jigéen ñi wala ba jigéen ñi di ñëw ci moom mu nekk loo xamante ne du lu normal te comme si def yenn yi ba pare da lay bëgg di la toroxal